li ma bëggoon njëkk a njëkk a njëkk rafetlu. Mhm. d' abord mooy euh, la prise de conscience de notre opposition parce que tey au moins bizarrement et brusquement on a maintenant une opposition bu xam ne ci état de droit lañ nekk ci yoon lañ nekk que bu ñu la tegee loola naqari am nga fooy jaar am nga ay voies de recours ba espérer am tey ñu débouter état sur des options. pour ñoo non parce que tey soo xoolee ci ginnaaw ñun ñëpp fekk on la là euh, ñu ne la carrément ñoom gëmuñu yoon gëmuñu justice magistrat yi lu nekk ñu yàkk leen ko institution yi ñu bafuye ko balafre ko jaa yaakaar ne la violence l'appel à l'insurrection mun na la may dara ci dëkk bi mais tey bu ma déglee cinq mètres. waaw mais est-ce que ki ngay wax Ousmane Sonko est-ce que amul woon lu mu dund moo taxoon mu am attitude boobu quel que soit alpha politique quand même bu ñu nekkee ci réew foog ñu convoquer l'histoire Sénégal du tey la ñuy doog a dem élection am am na ay alter alternance yu bëri mais toujours euh, dama naan boo nekkee acteur politique ku mel ni Ousmane Sonko nous on le respecte man bokk mi nekk un acteur politique jeune euh, dem première élection am presque plus de quinze pour cent donc am nga fu la nit ñi teg am nga loo espérance bu nekk ci nit ñi mais loolu su nekkee ci yow en tout cas da nga war a am la tête sur les épaules euh, xam ne république bi nga dox tey ba ba fekkee ko fi ay génération et des générations ñoo ko construire c'est-à-dire c'est pas par la violence par l'appel à l'insurrection lañ ko mun a bafouer comme ça ba mun a accéder comme ça au pouvoir te tey li ñu fi gisoon dans le passé ñu koy regretter malheureusement mu occasionné beaucoup de morts tey la vérité est que amul lenn lu mu réew mi lu dul des souvenirs macabres. d'accord tey nag macha allah tegu nañ ci yoon ti ah tey li am Ziguinchor mais loolu ndamu ndamu ndamu démocratie la Adja Astou tey la mhm. gën a Sénégal. gën a am tax taxawaay ci démocratie maintenant nag. Euh, euh, am na mu yoo xamante ne waa waa DG ñu ngi koy euh, sànq maa ngi koy wax waa DGE tey mm-hmm. démocratie yoon am na loo xamante ne moom la wax le juge am na lu mu jugé donc tey jii nii est-ce que yoon la woon su dee ñu ngi topp li nga xamante ne moom mooy yoon ak démocratie vraiment dinañ doon bañ a bañal Ousmane Sonko pour ñu retirer li nga xamante moom mooy les fichiers. parrainage waaw xam na juridisme bi moom man gis naa sama waa ji sax andi beaucoup de documents man je suis pas juriste. mais daal li ma la mën a xamal daal mooy DG euh, d' abord am d' abord il faut ñu respecte suñu fonctionnaire quand même ils ont organisé beaucoup d' élections dans ce pays à notre défaveur ci seen règne l' équipe là la ñu perdre Dakar perdre Ziguinchor perdre le le centre perdre beaucoup de zones donc jàpp naa ne ay fonctionnaires li ñuy def xam nañ ko mais. ay acte administratif la même bu dee bu la neexul am nga foo koy attaqué comme comme voie bi ñu jël encore que am na d'autres spécialistes dans ce pays ku ci mel ne ñoom maître Doudou ñu ne la carrément DG n'est pas habilité à euh, intégrer waat ci liste ku ñu raje am na yeneen yeneen voie yu mu rajaar donc pour dire pour dire tout simple pour dire tout simplement que ne je pense que man mënuñu mënuñu mënuñu mettre à terre à plat ba jël dëgg jox ko non loolu yoon moo koy àtte ku ci nekk di nga jaar fi nga war a jaar ñoom li ñu mën ñu ngi koy def état bi am na si pour d'avocat foofu lañ koy àtte mais ñun du point de vue politique li ñu gis daal ñu ngi koy rafetlu. d'accord au moins tey la république est là te nit ñi mën nañ ci am yaakaar. Mhm. d'accord alors quelques secondes question bi la Adja Assoua <laughs> est-ce que salfaañe démocratie amul ci acte bi nga xamante ne parce que juge bi di Sabassi dafa am loo xamante ne verdict bu mu joxe verdict boobu. dañ ko waroon appliquer normalement ba léegi am na un débat juridique ñu naan euh, le la la décision elle est suspensive elle n'est pas suspensive nous on va au-delà de ça mm-hmm. est-ce que yenn taxawaay yenn démarche yi du salfaañi li nga xamante ne moom mooy démocratie Sénégal muy démocratie boo xamante ne dañ ko loué partout en quelque secondes DG non non en fait xam nga aussi euh, démocratie ak état de droit toujours dafa am ay fondement mm-hmm. ay texte la tey fii gis nañ acte administratif bu nekk ay ñu attaqué ko fii cour suprême ñu retiré ko dafay am mais ñoom aussi nañ leen jox cër parce que dama ne c'est des fonctionnaires rompus à la tâche yàgg organiser élection am ay jomtukaay yu ñuy sëkkandiku pour poser ay actes xam nga problème pour problème am na ñu ne des juristes de renom ñu ne carrément c'est c'est pas au juge n'est-ce pas de de euh, d'instruire ou de demander euh, la DG ñu ñu ñu ñu ñu ñu dugalaat Ousmane Sonko bon moom tey. pour pour dire tout simplement. ça dépend du ministère de l'intérieur. voilà mais c'est ça tey am na ñu ñu ñoo xamante ne jàpp nañ ne ministère de l'intérieur ñoo am cette cette cette cette. orientation mais li ma fi ma bëgg a daanalee mm-hmm. mooy que ne. très rapide faaw euh, exactement c'est-à-dire tey euh, état de droit ak ay banquasam lépp la prévoir tey boo amee lu la neexul am nga foo koy attaqué am nga fooy dem am nga foo koy waxee mais c'est pas parce que rek au nom de la démocratie ak de l'apaisement que nit ki prérogative bu bu mu bëgg am rek pour pour de raisons de stabilité da ko war a am si par exemple li muy laaj méngoowul ak li teg si prévoir ak li nga xamante ne mooy jumtukaay li mu may mais du ko am